asalaamaaleykum di nuyu waa Sénégal ñu fi nekk ak ñu fi nekkul ñëpp di ñuy waa adduna bi di wax ni man gay Gueye laa tudd Baye Fall lañu ñu may wax ndax damaa jébbalu woon ci koo xamante ne que mooy sëñ Fallou Fall borom daam àjjana moom sëñ Mourou Moustapha Fall euh, bi mu doonee sama sëriñ ba gisatuma ko ci bàyyib góor mi laa yeeslu bàyyib góor mi nag mooy boroom ndaam mooy sama boroom ndaam man. waaw mooy ñi ma xamut rek waaye ñi ma xam te xam ni man mii am naa sëriñ ci yoonu kër maam Cheikh Ibrahima Fall nga tuñ ma waaye ñi ëmpule ni ko defe ni damaa ñëw rek joox ci yoon wi man jooxuma ci yoon wi yoon wi sëñ Fallou Fall borom ndaam moo ne woon sama sëriñ moom sëñ Moudou Moustapha Fall bi fi sëñ Fallou Fall borom ndaam jóge bàyyib góor mii ko fi wut man mooy sama sëriñ ci moom laa jébbalu saa bu ma tuddee sëñ Cheikh Fall bàyyib góor moom mii laa tudd bis bu bu ma tuddati duma ko tuddati te nag man awma lu bàyyi góor awma loolu moom mooy sama bunt ci maam Cheikh Rafal. Mhm. waaw wéeri wéeri man artiste laa rek tourné naa ci yeneen film yoo xamante ne que ma ci benn sëriñ mais day laaj sama yëg-yëg man bu sama yaram tàngee damay bëgg a xamal ne kan mooy maam Cheikh Rafal di ko ci wane ci sama jëmm ci da koy laaj parce que leetar boo dem adresse ba rek ngay mën a liir xam ko ko moom man sama leetar ci sama àdduna maam Cheikh Rafal la ku ma xool xam ni ku ma ubbi xam ni Cheikh Rafal rek a nekk ci man awma lu dul maam Cheikh Rafal moom mii mooy sama kilifa bis bu ma nee bu ma dégg bu ma bu mu tourné ci wiiri wiiri ma bax parce que man awma lu dul maam Rafal yàgg naa fee nekk di créer sama affaire doon sama artiste te wiiri wiiri ñëwul wiiri wiiri film la boo xamante ne Sénégal gépp ko bëgg loo ci xool gis ko ci man artiste laa rek buy théâtre rôle bi am ma am ci wiiri wiiri bu ma amee bu ma amoon beneen rôle ci wiiri wiiri dama koy joué parce que rôle bu ñu ma jox ma joué ko loolu la rek. jaaro nopp bi dama judd ba am ñetti fan sama maam bënnal ma sama nopp bii samay sama askan yëpp képp koo xamante ne que noo taal sama ndeyale jur rek bënnal nañ la sa nopp. foofu laa ko jëlee mënu ma ko mënu ma ko dindi sama nag parce que ci laa judd sama aada la bépp doom ji ma jur am na mbënn nopp moom mii baayam siyaara naa ko lu jege ñaar fukki at te musta tudd sama jaaro te yaakaar naa ne maam sëñ Fall Fall borom ndaam ku ko xamul dégg nga ndaam ku ko xamul dégg nga ko te musta wax ci sama jaaro bi moom mii itam musu cee wax kon sama jaaro bi nañ ko baag man fi ma def maam Cheikh Rafal defuma fa jaaro bi man maam Cheikh Rafal képp ku koy diiŋat doo jaar ci man ndax maam Cheikh Rafal tudd naa ko ñetti doom te nit yi wax ñëpp amu ci ko ñemee jël su jënt dem tuddoo ko maam Cheikh wax ñëpp amu ci koo xamante ni que jël na ay jur dina juri doom tudd de maam Cheikh Rafal rek man def naa loolu sama ñetti doom tudd naa ko maam Cheikh Rafal kon ku koy yeb doo jaar ci man. non du ma découragé du ma découragé kay daf may gën a yokk Pastef rek daf may gën a yokk Pastef rek bis bu ma ci waxee lu garaaw sëñ bi dana ma ne li nga wax garaaw na te du ma wax lu garaaw man man damay bégal jaam ñi rek man loolu la ma yàlla séddee ma nekk comédien di fo dañuy fo rek wiiri wiiri tey ji li Cheikh Ndiaye def ak Soso dañuy fo dañuy jàngale rek seexu naa li muy def dañuy jàngale rek saa neex li muy def dañuy jàngale rek saa neex bonu nit ku baax la Cheikh Ndiaye bonul nit ku baax la alaaji góoro bonul nit ku baax la Baye Fall ku dëggu la man sama kër lu ma fa wax dañ koy def ci ci nu mu gën a gaawe kenn xamuma ci lu dul liggéey bilaay barke maam Cheikh Rafal man liggéey rek ci la ma nit ñi xam duma ma tox yàmba du naan sàngara du ma tox cigarette bokkuma ci Baye Fall yooyu nga xamante ni dañuy lu ñu am dañuy dañuy saaw man saawuma sëriñ bi ma sukk jébbaloo gi ñuy toog bis bu ma ne woon bu ma dégg te nga tudd benn sëriñ ma tudd benn sëriñ te à partir aujourd'hui bi sax dutuma tuddati kenn ndax lu ma bëgg a wax dinaa ko wax ci sama xol. ma di leen xamal ni leen man doomu Sénégal laa rek ab comédien laa rek rôle bu ñu may jox dama koy suyee rek aw mag kenn xaar ma yàlla moom moom muy wax noonu sama sëriñ la ndax man lu bokk ci maam Cheikh Rafal rek bokk nga ci man. ndax maam Cheikh Rafal bëgg naa ko bëgg goo xamante ni que du ma ko foye man non non du ma ko foye parce que li ma fi ma jànkan jaar ak moom jànkonteeg moom ba doon tey jii ñu may wooyee Baye Fall maa ko xam ku ma ko waxul doo ko mën a xam dawal naa sama dukkati bi bu dugal ko ci taatu moto Cheikh Rafal la ma ci génne yombul ku ko def ci Sénégal gi génn ci dukkati baa ngi ni ci biir saañ ci taatu oto rule jóg taxaw maam Cheikh Rafal la ma ca génne man yoon wi borom yoon wee ma ci dugalal boppam ma am ci bunt boo xamante ni que muy sëñ Fallou Fall borom ndaam àjjana sëriñ yomb na bari na lool ci réew mi waaye waaye dafa wuute maam fu ma jaar moom ci yu bari maam lu mu def ci man moo ma ne won demal Thiès ma ne ko Thiès dafa laa bëgg a nekk mu ne ma demal boo fa naanul sàngara toxoo fa yàmbaa lépp loo nekk suba ba ngoon jot maa nga ca sama ñëw Thiès fii bokk na ci ndigalam ba ma ko ne Thiès laa bëgg dem dani ma boo fa naanul sàngara tuxoo fa yàmba defoo fa lu burte la sàccoo fa loo nekk suba ba ngoon jot maa ngi ci te boobu ba léegi defe naa ne maa ngi ci ñi ma umpale nag umpale nañ ma xamuñu ma mais ñi ma xam bu baax xàmmee ma bu baax xam nañ man doxuma ci ay caaxaan te koy yàpp Cheikh Ibra Fall doo ko jaare ci man message bi may jàllale nag mooy yëg gi ma am ci Cheikh Ibra la rek ak xër gu ma am ci moom ndax boo ma xamee dëgg xam ne dama cee xër lépp lu ma yor sax te bokk ci koy tudd nit ba koy tudde welo bu ñuy dawal kon xam nga ne kooku xër nga ci moom tudde naa ko ay nit ba sonn ma di ko ma tudde ko welo mu tudd welo bi Baye Fall Baye Fall ab tariixa la rek boo ci bokkee rek war nañ laa wooye Baye Fall murit bu ne sañ nga ñu lay wooyee murit tijaan bu ne sañ nga ñu lay wooyee tijaan noonu la demee rek képp kook woo ci diineem rek ci tarixaam rek mu kontaan loolu la rek mandarga mi ne ci man bis bu ci jógee dootuma doon Baye Fall mais tant que ma nekk ci li ma nekk nii rek Baye Fall lañ ma war di woy parce que moom laa waaye Baye Fall laa boo xamante ni nag damaa xaw a wuute trop ak Baye Fall yi parce que rax dafa am lu ne ci man loo xamante ne que kenn mënu ko ci jële man ñi ñi inspiré wuñ ma ñi ma inspiré sama sëriñ dong doon ko yombul woon maam Fallou Fall rek laa ma sa sukk ci karamam mu digal ma ma def ko mu tere ma ma bakku parce que dafa am lu lu yàgg nelaw ci sama jëmm ji. maa ngi sant bu baax nag. ndax bi sëñ Fall Fall jógee ba nag moom wuti dara ci sëriñ lu lu mu digal suba ba ngoon jot dañ koy def lu mu ñu tere dañ koy ba ku dee nag yàgg sa bàmmeel jëf day wuy ji borom maam Cheikh Rafaale ne woon liir bu ne ci biirum ndeyam na mën a mucc ca ca ay bi ndeyam ba ni xëy ni jaww ni lañ mën a mu doomu aadama mën a mucc ci bàmmeel bàmmeel jër ta ragal yàllaa jara ragal ñun yàlla rek lañ gëm ak Cheikh Rafal jërëjëf.